sànq thème bi tey mooy al abdul xadimu wa manhajuhu assunni sëriñ Touba mi nga xamante ni mooy jaamu bi yàlla bi nangu ak njaamam di ko jaamu bu wér tey liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa ak ngërëm mi nga xamante ni wala yoonam wi nga xamante ni da ko tegoon ci kaw sunna nga xamante ni lenn génn ci sunna kon tem boobu moom la ñu nar a waxtaane tey ki ñu ko nar a baaxe tey nag mooy di sëriñ Fallou Bousso ñu gën koo xam ci aas moom ci gàttal mi ngi juddoo Touba fi la jàngee alquran ci sëriñ bu ñuy wax sëriñ maam ibrahim Mbacke ñi gën koo xam ci sëriñ maam fa la jàngee ba wattu alquran bind kaamil jébbal ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ba fa jógee nag mu dem ci eh, institut islami bu al azhar bu bi nekk ndaam muy daaral alimul xabir bi nekk ndaam ñi gën ko xam ci ndaam fa la doon jàngee ba amee shahada al ibtidaaiya ak i'daadiya ba mu fa jógee nag la daal laxas dem ci dëkk bu ñuy wax Égypte fa la doon jàngee continuer am njàngam ba fa la amee li ñuy wax euh, ashahada asanawiya continuer ba tey am njàngam ba am fa li ñuy wax licence ci euh, kulliya sharia wal qanun ci Égypte kon la ko amee muy licence boo xamante licence fala amee licence ci kulliya sharia wal qanun 1991 kon fii ñu toll tembe nag moom la Cheikh Mouhamadul Mourtada wóolu ba dénk ko euh, école bi nga xamante ni moom lañ tuddee Cheikh Mouhamadul Bachir tam nekk Thiès kon fii ñu toll nii rek Dembe moom mooy ki nga xamante ni mooy directeur ba ba tey imaam la ci jàkka jooju euh, joo xamante ni mi ngi nekk ci biir Thiès kon moom imaam la fa ba noppi waraatekat la fa moo fay jiite ajjuma ci jàkka ju nekk ji wala jumaa ji nekk ci biir Thiès kon sëñ Fallou moomu tey jii moo ñu fas yéene baaxee waxtaan wi. kon ngir bañ a guddal du ñu def lu may jox kàddu gi sëriñ bi rek mu dugg ak ñun ci waxtaan bi kon sëriñ Fallou bismillah أعوذ بالله من wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin annabi al ummi wa ala alihi wa saxaabatihi wa xadimihi wa ummatihi wa sallama tasliman kathira amma baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi déglu rajo làmp ak fu ñu nekk ñoo ngi leen di nuyu nuyoo lislaam ba gën sell di jiital ci nuyoo bi bi nga xamante ni fi lañ kàddu di jóge tey jii ci guddi gi di nuyu borom kër gi muy koo xamante ni jaar nañ ci loxoom mu jàngal ñu muy sëriñ Afia Ñang ñoo ngi koy nuyu tey ñaan yàlla itam mu guddal aw fanam te may ko wér jëram ku njabootam di nuyu itam mbokk yi fi teew di nuyu niñ ko waxe woon rek képp koo xamante ni sunu kàddu mi ngi yegg ci moom ci guddi gi di nuyu itam waa daairatu muqaddamatul xidma bu jumaay Tuuba di rafet lu itam waxtaan yi nga xamante ni ñi ngi koy taxawal te jubluwuñ lenn lu leeral njàngalem lislaam leeral itam yi nga xamante ni mooy jéego yi nga xamante ni mooy jéego yi Seex Ahmadu Bamba jéego woon te itam digal taalibe yi itam ñu jaar ca roy ko ci tey jii nag ñu santoon ñu ñu day sunu waar ci wenn laf woo xamante ni ñu ngi aju ci dund Xaadimu Rasuul ndax ku nekk xam na ni bunt bu yaatu la woom goo xamante ni mën nañ cee waxtaan ci anam yu bari ñu santoon ñu ci nag ñu tànn ci lu ñu tudde ñun al abdul xadim wa manhajuhu sunni maanaam sëriñ Tuuba ak yoon wam xàlloon te lenn wuute wu jaag sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu itam ku nekk xam na ne yaatu na détaillé ko waxtu duñu ko may waaye ay junj rek lay doon bala ñoo dugg ci loolu nag am na lu ñuy jiital loo xam ne yaakaar nañ ne dana am njëriñ muy lu aju ci tool bi nga xam ne Serigne Touba ci la daan yëngu muy tooral lislaam ndax dafa nekk diine ju am solo joo xamante ni yàlla sunu borom tabaraka wa taala daf koo baaxe yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu di diine joo xamante ni la yàlla baaxe woon yónnente yam yónni woon daf koo boole dajale ko togg ko ci loosalu sayyidina muhammad ngir mu jottali ko mboole luy mbindeef moo taxoon mu waxoon ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne bu'ithtu ila al ahmari wal aswadi wal abyad ba xadis ba jeex moo dina ci ñëpp nañ ma yebal alquran itam waxoon ne wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaasi bashiran wa nadira ci ñëpp nañ la yebal yow muhammad ak wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin looloo tax lislaam wuuteeg yeneen diine yi fi jiitu woon ngir yaatu bi mu leen gën a yaatu yeneen diine yu jóge woon ci asamaan te wéeroon yàlla wàccoon ko ci ay yonent léeg-léeg ñu leen daan askane la ci dëkk wala ci turu nit wala ci turu ak njaboot muy famille lislaam nag ginnaaw sunu boroom daf koo wàcce ñépp bokk moo tax mu wuute ak aw tur ak yooyee diine donte ne diine yu wér la lislaam deesu ko askanale ci dëkk ndax kon dana roog li ñu nasraan ya ndax wax nañ ne an naasira dëkk la boo xamante ni yonente yàlla Isaa fa la dëkkoon ñu ko an nasraan ya dana wuuteeg almasix ya weneen tur la ci nasraan ya ndax dafay askanoo ci jëmm ji ñuy wax almasix muy Isaa bnu Maryam wuuteeg tam al ngir ne moom ci xabilatu yahud jaboot aw nit woo xamante ni mu siiwoon lañ bi ak al yahudiya loola itam lislaam dafay wuuteeg loola kon képp koo xamante ni gëm na lislaam dafa gën a yaatu yooyu ñu tudd yëpp moo tax képp koo xamante ni jullit nga gëm mbooleem ku yàlla masa yónni mu nekk ab yonent moo tax alquran di wax ci làmmiñu way gëm yene laa nu farriqu bayna ahadin min rusul jullit daal du am sañ-sañu damay gëm muhammad alayhi salaatu wasalaam te duma gëm isa waa am njiitam du wér wala damay gëm yonente yàlla ibrahim wala damay gën muhammad te moo duma gëm ibrahim naka nu mu noox ba yonente jeex ñëpp daal la war a gën a ñu laa nu farruqu bayna ahadin min rusuli lislaam jooju itam noonu ñu ko junje woon li fi jaaroon ci ay diine te wér lépp yàlla dafa jukki ca diine yooyee la ci ëpp solo lam bëgg mu sax mu boole ko la alquran leeral naan ca suratu suura sara lakum min ad-dini ma wasa bihi nuuxa والذي أوحينا إليك وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى damooy an aqimu diin wala tatafarraqu fii boo xamal na yonent yàlla Muhammad ne ko liñ la andil wuutewut ak lañ joxoon Nuux wuutewut ak lañ joxoon Ibrahim wuutewut ak lañ joxoon Moussa wuutewutoon ak lañ joxoon Isa moo tax kon ku sàkku jeneen diine ju dul lislaam sunu borom bu la ko nangul wa man yabtaxi gayra al islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min al xaasirin ëllëg ci way perte wala ko diine lu bokk ak islaam moo taxoon sunu borom waxoon tamit inna diina inda allahi al islaam lu waral ñu jiital li xam la leen rek ni diine ju yaatoo noonu nga xamante ni askanale ko ci jëmm askane lu wuñ ko ci xeet askane lu ko ci dëkk te ku ko xas gëm da ngay gëm booleem ku yàlla ma sa yónni te yónnante ga wër diine jooju moom moom la aseex muhammad ibnu muhammad ibnu habibillah tànnoon ngir mu nekk diineem bu ñu wax dara nag lu dul ne dañ ci andi tegtal buy wane loolu mun bindoon moom xaadimu rasul ne billaahi amantu wa wajhi uslimu abdan lahu wali nabii axdun yàlla laa gëm muy sama yàlla sama buur moom laa jébbal sama jëmm nekk ab jaamam waaye itam nekk surgab yonentam daa tamit ne billaahi amantu wa bil quraani bi rasulillahi baddu saani karim ak yonente yàlla muhammad fi la sama mbir tàmbalee fa lay yemit di wax banaan bi madxiya dëhra rasulallahi wa bi salaati alayhi jaahi nee na sama daraja maa ngi ko amee man Serigne Touba ci tagg yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak ci julli ci moom di wax banaan bi madxihi afuusu inda mawti kama bihi udriku kulla fawti ci tagg yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci laay amee ak texe ba may wujjee sama borom waaye lépp lu ma masaan raw itam ci tag yonent bi aleyhi salaatu wasalaam laa koy dab dabaata jeexale wax ja nag lu am solo dane bi xidmatil kitaabi wala xadiisi yasbutu laa bi dahabin mawruufi nee na ku ma bëgg donn wala sama ndono man xaadim rasul mi ngi nekk ci nangoo nekk surgab alquran nangoo nekk surga xadis yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye day ku séntu ci man ma bàyyi fi or bu ñuy donn doo ko gis ñu dégg ci ne ku séntu ci xaalis bi ñu donn itam doo ko gis boo gisee ñu jiital tomb boobu ci xam ne lislaam yaatu gi mu yaatu ak xam le itam ne xaadim rasul diine jooju ñu la tànn muy diine ñoo bëgg saxal leneen moo di ne kuy waxtaan ci Sëriñ Tuubaa kan dëggati ko sa waxtaan mooy waxtaanu lislaam waaye kuy waxtaan ci lislaam itam sa waxtaan mooy waxtaanu Seex Ahmadu Bamba loolu lañ bëggoon a saxal ci loolu ñu jiital biir lislaam bu nag ci la li ñuy wax ak turuqu suufi yi muy yoon yi ak xàll yi nga xamante ni ñu yàlla baaxe ñu yor ay taalibe gis na yoon woowu ku ci jaar ci nga gën gaaw yegg ci sa borom ku nekk xàll saw xàll te yoon yu bari lool te yépp itam mën a yegg la ci yàlla dafa suuf yooyu ci biir islam boobu la génn ay jàmbaar mosoon fee feeñ nag yàgg yàgg ku mel na seex abul xasan assadali jàmbaar la woon boo xam ne yàgg naa yar ay taalibeem ku mel ne ku mel ne as seex abdul qadir jeylaani ku mel ne seex ahmadu rafaa ak ku mel ne Seex Ahmad Tijaani ba ci Seex Sidi al Kunti kon ay jàmbaar yoo xam ne ni liggéey nañ ci lislaam yar nañ seeni taalibe yu kon jaar leen ci siraatul mustaqim ñooñu buñ demee bay waxtaanee ku mel ne Seex Ahmadu Bamba dañ leen di fàttaliku di leen ñaan yàlla subhaanahu wa tabaaraka wa taala mu yokk seen leer bi nga xamante nag ñooñu liggéey nañ ci liggéey bu mat sëkk bu am solo bañ dem ba seen liggéey boobee tàmbali du tumuranke ci la sunu borom tabaraka wa taala itam nag mbaat jeneen jàmbaar muy seex ahmadu bamba ngir mu yeesalaat la ràppoon ci diine loolee nag nekk lu am am solo ci xeet yi nga xamante ni ci ñoom la yàlla baaxee seex ahmadu bamba feeñ ci ñoom muy nit ku ñuul muy waa sénégal di waa afrique di waa nit ku ñuul ak foo man dëkk ci àdduna ndaxte ku ci nekk nag dina sa borom su borom tabaraka wa taala baaxee boo xamante ni dafa bokk ak yow aw xeet war nga ko koy sant bookee di sëriñ Tuubaa nag ñu koy wax ak seexul akbar mooy sëriñ bu mag bi mu nekkoon koo xamante ni kenn mësta jaxasoo moom dul ne waaru nga ci moom ki ko yàlla bindee ci bëgg diineen ci baaxam nga ci yittewoo xam-xam ak ragal ak yàllam boobu yi nga xamante ni moom la meloon ak nam ma nangoo woon a yàlloo yépp coono ci wàllu diine ak nam jaare woon ci siraatal mustaqim ak nam dëdd woon àdduna dëggu bu dëggoo dëggoo dëggu ba nga xamee ne sunu borom tabaraka wa taala dafa mel ne daf koo mooñaale ak bëgg yàlla ak topp yàlla ak dëddu àdduna ak nangoo toggoo bëtt joona ngir lislaam yegg fa mu bëgg mu yegg fa loolu mooy li nga moom la ñuy jiital di delloowaat kàddu bi sëriñ Seexuna dañu dégg si waat ci kanam jërëjëf sëriñ Fàllu mel na ni li nga jiital lu am solo la ndax noonu nga ko junjee rek ci la ñuy xamee ni kii ñuy bëgg a waxtaane kat kon léppam da koo tegoon ci sunna léppam it génnutoon diine lislaam mel na ni am na feneen fu mu ko waxaatee ci biir ay xasidaam muy waxee naan allahu rabbi wa hudal islaami diini wa afdalul wara imaami raditu bil islaami diinan laa yazuul wa bi muhammadin nabiyan wa rasul wa bi kitaabihi wa bil bayti dalil wa qiblatan li gayriha lastu amil zahara li anna ictisaaman bilkitaab wa bixadiisi almustafa huwa alsawaab haadi tariqati wa fiha almau taraiqa alqawmi alladina jamau kon loolu lépp day tegtaleen rek Sëriñ Tuubaa moom ab tànkam mi ngi ko tegoon ci sunna mi aw yoonam it mi ngi ko fonde ci kaw lislaam Sëriñ Fàllu mu mel ni moo di uhuru cheikh al xadim sëriñ tubaa ak feeñam lañ bëggoon nga mosol ñu ci tuuti sëriñ bi jërëjëf sëriñ Seexuna noonu nga xamante ni moom lañ tàmbale woon ci xam le lislaam ak yaatoom tàmbale woon ci xam le itam tudd ko suufiya yi muy xàll yi nga xam ne ñu baax ñoo ko xàll ngir yar taalibe yi ba leen a yàggale ci sunu borom ñu dem ba jëmbi jamono loola tàmbali ràpp yàlla baaxewaat jamono ci ku yeesal diine ji muy Seex Ahmadu Bamba foofee mi ngi feeñ ci ama saran muy sëriñ Serigne nag nekk koo xamante ni ñu ngi ko xamee ci a Seex Ahmadu Bamba ibn Muhammad ibn Habibullah ibn Muhammad yu xëy sosoo ci Mbàkke Bawol Bamba jooju nag mu war cee sànni kàddu ngir xamle ko ndax bariwaane ñu koy dégg te xamuñ luy cosaan Bamba ab dëkk la boo xamante ni jamono yi ñuy wax nee nañ mi ngi ci département bu Kaffrine te biir Saalum bu wax Cheikh Ahmadou Sall seex Cheikh Mouhamad Sall dëkkoon fa jamono ji nga xamante ni Mamour Anta Sali mu ngi sàkku xam-xam di wër ba yegg foofee ca dëkk ba ga Cheikh Mouhamad Sall fa la jànge xam-xam yu bari nee nañu fa la jànge xam-xamu tawxid jànge fa xam-xamu fiq jàng fa yeneen téere itam Cheikh Mouhamad Sall nekkoon ku baax a baax nekkoon borom bilaaya yàlla def bu mu fiy jógee moom Cheikh Mouhamad Sall bàyyiwut doom mbokkam ñam bokkal ñoo am ak njaboot waaye moom bàyyiwut doom bëgg gi nga xamante ni Mamour Anta Sali bëgg na ko sëriñam boobee ko doon jàngal muy Cheikh Mouhamad Sall moo waraloon mu nësër ne su amee doom bi tuppe ko ko moo tax bu ko yàlla baaxee ku nga xam mooy yeesalaat sunna yeesalaat diine di Cheikh Ahmadou Bamba mu tudde ko ko looloo moo waral baatu Bamba bi loola nag nekk loo xamante ni képp kuy jàng war na cee roye Serigne Mamar Anta ci wormaal ka lay jàngal ci teral ko ba yegg sax ci tuddee ko doom muy loo xamante ni lu ñu war a roy la ndax lu ama am solo la lislaam jooju ñu doon wax nag moom ni ko Muhammad Mutawalli Sahra bi waxee woon rek la laysa sabilan min as-subul walakinahu sabil wa laysa manhajan min al manahiji walakinahu al manhaj min al islam du aw yoon ci yoon yi bañ naan islaam a ngi nii benn la ci yoon yi waaye nee mooy yoon wa du aw xàll ci xàll yi itam waaye bañ naan lislaam benn xàll la ci xàll yi waaye mooy xàll wa lu yaatoo noonu nag kon ci la Sëriñ Tuubaa feeñ feeñal ci itam tariqa boobu ñu wax tariqal muridiya loolu kon mooy cosaanu Bàmba mu bari ay tur lool nag ndax Muhammad ibn Muhammad ibn Habibullah ca la bokk Xaadimu Rasul ca la bokk Serigne tuubaa bi ñuy wax ca la bokk ñu di ko wax sayxuna ak sayxul akbar loolu lépp tegtale la naar ya daan wax ak naan waalam bi ann kathrata al asaami dalilatun ala ann al musamma saami ku bari ay bari ay tur dafay tegtale la ñuy wutal tur wa lu màgg la luñ fonk la wala sax loo xamante ni teg nañ ko ci barab bu kawe alayhi salaatu wasalaam ak roy bu muy roy jeexitu sayyidul wujud sallallahu alayhi loola lay tegtale ak ay responsabilité ak warte ci wàllu diine yu mu yu méttee méttee méttee loolu lay moo tax Serigne Touba nag dëggal tur woowu ci ay jëfam ak waxam nañ ko déglu fa muy wax ak boppam mel ne ko xaaj jëmmam ñaari xaaj jàkkaarlook benn ba ca xasiida gëm tudde muqaddamat fa muy waxe naan ayaa xaadimal muxtaari laa tansa saxbahu fa man yansahum fal madxu madxum muxata'u e yow kiy tagg yonent bi alayhi salaatu bul fàtte saxaabaam ndax képp koo xamante ni yaa ngi tagg yonent bi fàtte ay saxaabaam tagg woo rafet rafet am na njuumte ginnaaw nag dafay digle lu baax moom mu jiitu ja moo tax mu ne abu bakrin siddiq de sidq wal wafa rafiqu nabiyi l mustafa al gaara am ba u nee kooku mooy abu bakrin mi nga xamante ni borom mooy borom dëggal ga mooy ka àndoon yonente bi alei salatu wasalaam ca biir xunt ma teg ca kan abu xafsinil faaruqu sarwaahu naadirun bi'taza diinul mustafa is yuzazau nee na mooy bàyyi gaynde muy Omar ibnul Xattaab ngir njàmbarteem ga mu ne kooku day bu ndendam amee ak kum róole amee itam bariwut sarwaahu naadirun bien tazza diinul Moustapha ci moom la diine yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dëre am doole is yu za za waxtoo muy rëng-rëng Omar ibnul Xattaab jàmbaar la woon joo xamante ni ku taroon la ci jullit yi bi mu dugg ci lislaam waaye ba mu duggee nekk ñeent fukkeel ba itam ku jàmm jàmbaare la itam ci aar lislaam koo xamante ni itam ragalutoon yéefar ya ba jullit yay gàddaay di beru ak di làqatu digg bëccëg la génn taxaw ca tund wa gën a kawe ca màkk ne yéen waa màkk omar ibnul xataab a ngi nii di gàddaay koo xamante ni bëgg na waa këram muuru ko wala waa këram jooyoo ko na ma topp ci ginnaaw xur wee kooku mooy omar xataab moo tax sëriñ tubaa tudd ko abu xafsinil faaruuku sarwaahu naadirun bi'tazza diinul Mustafa is yuzazaw teg ca kan afi saxbi man daaha bina affaana dal xayaa lahu nuuru thumma nuuru ni'mal mubawwi'u mu ne ndax am na ci saxaaba yi ku nuroog ibnu affaan te mooy Usmaan ñu ne ko mooy kan mu ne dal xayaa kay borom kersa ga kersa la amoon ba nga xamante ni bis bañ ko falee mu nekk xalifa moom Usmaan ibnu Affaan ñu ne ko mënoo ñàkk a jàkkaarloog nit ñi def sa premier discours wax ak ñoom mu ñëw fekk jàkka ji fees dell ak saxaaba ak i saxaaba mu ñëw di yéeg ca kaw mimbar ba benn escalier la def teg ca beneen bu ñaareel ba tànkee mel na lu la mu far fa toog ba mu demee ba munta ñàkk wax mu ne ayyuhal muslimuun indakum xalifatu faalin laa xalifatu qawwal ee yéen jullit ñi bis na ko tey na leen wóor ne kii falu ci yéen nekk seen xalifa xalifa jëfkat la waaye du xalifa waxkat muy wax ju gàtt te làmboo maana yu am solo mu ne nag lahul nuuru kooko am nag leer su ma nuuru amaat geneen leer yonente bi aleyhi salaatu wasalaam daf koo may doomam ju jigéen kooka yàlla wedd ko mu faatu yonente bi aleyhi salaatu wasalaam fabaat beneen doomam may ko ko moom Osmaan kooka yàlla def itam mu faatu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne cey bu ñu amaatoon ñetteelu doom day may ko Ousmane nekkut fanaan dafa gaafal wala dara moo tax mu ne neexma baax na almubawi ak denc ja teg ca ñeenteelu xulafaa rasidin muy ali ibn abi talib abu sibtay yi muxtaari wa huwa ibnu ammihi aliyin ala faxtiira neexmal mujarrau nee na mooy bàyyi ñaari sëti yonent bi aleyhi salaatu wasalaam muy xasan ak xuseyn Ali ibn Abi Talib nekkoon jàmbaar joo xamante ni moo tëddoon ca lalu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ca guddi gàddaay ga ba ñëpp amee lu ñuy ragal nekk koo xamante ni keroog Xaybar ba nga xamante ni ubbi dëkk ba muy dëkk bi yahud ya tën a jullit yi ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam wër dëkk ba ay fani fan mënuñ koo tëj genn guddi la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne la utiyanna raayata gadan li rajulin yuhibbu llaha wa rasulahu wa yuhibbuhu llaahu wa rasuluhu drapeau bu lislaam bi suba danaa ko jox waa joo xamante ni ku bëgg yàlla la waaye ku bëgg yonentam la waaye ku yàlla bëgg la ku yonentam ba bëgg la saxaaba yépp bëgg a nekk waa joojee ku nekk di ko ñaan ba mu xëyee mu woo Ali ibn Abi Taalib karamallahu wajhahu jox ko raaya boobee muy nekk koo xamante ni Shaybani lam yasrabil xamra lam yasjud ila sanamin mustata naan sàngara musta si jootal xiram ñeent ñooñu nga xamante ni moom la Sëriñ Tuba tagg ci xasida googu yu muqaddamaatu am daax te tudd taggaat leen ci yeneen xasida yi lu mel ne jësbul xulub ak mawaahibu naafi ñooñee mu tëje ko ne a saxba rasulillahi inni xadimuhu muhibban lakum fi llaahi wallaahu yatlabu lu waral ñuy wax li lépp mooy xaadimu rasul bi ñu rek wane fonk bu sëriñ tubaa fonkoon dàkkantalam boobu muy xaadimu rasul jë ayaa xaadimal muxtaar jooju waaye itam bu ñu ubbee jazbul qulub li allaamil xuyub daañ fa fekk ci bayitu ñeenteel ba muy wax naan shakartuhu iz xassani bi xidmatil maaxisani daa xidmatin fil alani lahu wa fakk walami sant naa yàlla mu mel na dañ ko wax loo ko sante mu ne il xassani bi ma jagleel bi ma jagleele ma nekk koo xamante ni damay sax ci bi xidmatil maax yi ci liggéeyal kii far bàkkaar mu yonent bi alei salatu wasalaam assani ku kawe mu ne daa xidmatin fil alani lahu dama koy liggéeyal ci lu bir wa fakk walami bam dajji sama jing kon xaadimu rasul jooju daana ko bége ba ciy sant yàlla sunu borom tabaraka wa taala ak lam waxoon ne la haaza abdullahi xaadimu rasul dunya wa uxra ismatan wa xay rasul ak saadati bi gayri mahwin kutibat wa kawni al abdal xadima qad tabat ñu doog di dugg ci li nga xamante moom la sëriñ bi waxoon léegi ci sosu gi mu sosu moom sëriñ Tuubaa ci njëlbeenam waaye juram di jaaratullahi Mariama Bousso nekkoon ku baax koo xamante ni jigéen ñi war nañuy roy ci moom waxtu wu nekk baaxoon lool am lu muy jomb bari diine lool bari woon lu muy julli ak lu muy saraxe nekkoon koo xam itam lam jaamu yàlla lépp itam mësta fàtte ki nga xamante ni moo nekkoon sëriñam muy mamar sëriñ mamar anta sëriñ nekkoon koo xamante ni itam daana yar ay doomam ci mbaax ak diine ak laab daana leen nett li itam jaar-jaari nit ñu baax ni loolu boo gisee ñu ko fii tudde tudd fii ngir bëgg jigéen ñi roy ci loolu di nett li seeni njaboot jaar-jaari nit ñu baax ñi ngir ñu mën cee roy benn bis maam jaara di nett li sëriñ bi naanu ko nit ñu baax ñi day bu guddi masaan jot dañuy beru di naafila fanaane naafila te loolu kaanu qalilan min al-layli maa yahjaun alquran dafa tag nit ñi nga xamante ni guddi seeni wet dafay soreek fa ñuy tëdd mooy duñ dañuy néewal la ñuy tëdd kaanu ida leylu arxa sitra da xalakin qaamu siraan li ixyaa iddi junnaati mu nett li loola sëriñ ba ba mu déggee loola te booba ci zahir ndaw la ca la di beru di taxawal guddi yi di ko naafi la nekk loo xamante ni yàgg na dem na ba nga xamante ni làgg na ci ak jaamu yàlla moom Serigne Touba te booba zaahir ci zaahir ndaw la kon la imaamu Busayri waxoon ne alifan nuska wal ibadata wal xalwata tiflan wa hakaza miin na ak jaamu yàlla miin na wéet ngir di xalam ca jamono jëm nekkee ndaw nee na nit ñu baax ni ñu nar a tekki itam foofu la ñuy jaar mu nekkoon koo xamante ni moom Serigne Touba nag yëngutoom yépp ak i dalam sunna su la woon ak roy yonent bi alayhi salaatu ak soobu ci yoon wi nga xam ni tin ñu baax ña fa lañ daañu jaar ba ni mu ci yàlla ba yégg ci képp koo xamante ni soob na yàlla mu yégg ci Serigne Touba daal ni Cheikh Mouhamadou Bassir mbakk daan wax ak lam nett li woon ci minanul baaxil xadim wax ko ci arab yu rafet ne fa layluhu nahar wa nahaaruhu nuur maa lil axyaari fi zamanihi nasib innama huwa li rabbihi taala nee na sëriñ tubaa ca kër këram ja ak yëngutoom ja ak jeex gam jeex ci liggéeyal sunu borom tabaraka wa taala ak ñàkk a sànq waxtoom ci lu amul njariñ nee na dafa yeggoon foo xam ne dafa mel ni guddeem dafa mel ni bëccëg waaye bëccëgam itam mel nag leer xàmmeewu ci woon lenn mu mel ne dañ na ko wax nag waa ndax dafa nekkoon moom Serigne Touba koo xamante ni dafay jaamu yàlla rek bañ a faale nit ñi mu ne déedéet noonee mu doon doxale digganteem ak boroomam ci kër kër ci jaamu yàlla ni la daa toppatoo itam ak njabootam ni la daa toppatoo taalibe yi mu mel ne ko dañ ne ko waaw ku beeru di jaamu yàlla rek dangaa ngaa jagutam ah kay ku beeru di jaamu yàlla jàng waaye nag këla ëpp la mooy ka nga xamante ni dafay baaxal boppam ba noppi wëlbatiku baaxal mbooloo te mooy lii nga xamante ni yoon wi nga xam ne Serigne moom la xalloon di ci jaar baaxal boppam ci kaw ak jaamu yàlla gu méttee méttee mbett waaye wëlbatiku baaxal ay mbooloo ba ñuy nekk ay jaamukatu yàlla ñuy roy sunnas yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekkoon koo xamante ni këram gi nekkoon ci kër gu mag ci njaarim juróom fukki néeg la fa defaroon ci ay baraag yu seng ci nekk itam nañ ko doon toppatoo nit ñuy toppatoo jàkk rek la néeg bu nekk boo fa demee fekk fa ab der fekk fa daa fekk fa këyit fekk fay xalima fekk fa lal bu rafet nag waaye du ca tudd alquranul karim lañ ci daan sëf di ko sotti eau de cologne ya gën a neex di jàng bayitam yooyee yaa kitaabal karimi anta xabibi wa xalili wa qablu kunta tabibi ak bay jàll ci yaa kitaabal kafal ida walana a ba bayit ya jeex wala way wa jeex noonu nga xamante ni noonu la néegam yoo nekkoon xam ne su duggee ci néeg man faa fekk der boo xam ne dana ca def taxiyatul masjid julli fa ñaari rakka ndax dafa jàppe néeg bi comme jàkka su bëggee julli ci yonente bi alei salatu wasalaam ci mbind taalif fa ay bayit wala mu taalif fa ak xasida alquran ji nekk ci wetum looloo taxoon mu ne wajal buyuti kullaha masajida yaa naafiyan man laa yakunu saajida na def sama néeg yépp mu mel ne jàkka mel ne taxawaay taxawaayu jàkka néeg bu nekk itam ñu wékk fa ay yére yoo xamante ni saa su bëggee jaamoo sunu borom tabaraka wa taala bu mam soloon lu mu set set ak lu mu yees yees daf koy summi solaat meneen boobe ngir ne yàlla subhanahu tabaraka wa taala kenn waru ko jox ñam wu forox loolu nga xamante ni moom la dëkke woon bari woon lu muy jàng alquranul karim lool nga xamante ni li ëpp ci guddeem loolu la ko daan ci la ko daan jeexal néewoon ay nelaw lool ba mën nañu wax ne daawu ca jaar ndax koo xamante ni ci njëlbeenam la bindoon ne xay sumal kara jufunaka xalab fa kaabidanhu bi rukaatin tusab saa soo demee ba nga xamante ni nga meen mi ngi jàpp say xef ngay bëgg nelaw na nga dem ci ndox mi sax jàpp ca nelaw yoo jàll ngir nga mën a jaamu sa borom kookee sori naa ki nelaw looloo taxoon na kon bala ñoo jàll foofu itam ñu joxaat sëriñ bi mën a jàll ci na ko kon mën nañoo jàll loolu nga xamante ni mooy alquran ji jim daa saxal di ko jàng la ko ca jañoon mooy yaakaaram ju jum yaakaar jëme ko ci sunu borom tabaraka wa taala ak di bëgg di wéttalikoo yàlla ak nangoo ak yàlla ak nangoo déglu yàlla lenn yomb ci lenn nangoo toog ak yàlla ak nangoo dégg déglu yàlla mooy nangoo saxoo alquran di ko jàng tey settantal maanaa te di ko jëfe yomb moo taxoon bu ma waxoon bu yàgg ne innani ostu bil ilahi l muin min jamii l ada wa kulli lain man ci yàlla lay wéeru di muslu ci moom yàlla mi nga xam ne ku am ndimbal moo la ko jox ci mu musal ma ci mbooleem luy lore ak képp kuy rëbb teg ne saarifan himmati li rabbi taala raajiyan saqiyahu bi maa i maini soppi samay yitte yépp nag jëme ko ci yàlla subhaanahu wa taala di yaakaar sunu borom wëgg ma ca ndoxam mu sell mu neex moomee waaye itam bu may jëm ci yàlla kat damay jàpp ci téereb yàlla bu muy alquraanul karim jàppin woo xam ne dafa mel ne njàccaar wala gumba gu jàpp ci loxol njàccaar du sàggan mukk jàpp bu dëgër la cay jàpp ngir mu man koo guider teg ko ci yoon ba gën a jub nee na maasibul kitaabi maska bariri damay moy ci alquran ni nga xamante ni ku mënta gis dafay jàpp ci loxo ka koy wamm fi yadil qaidil basiril muini ndax alquran moomu kat wa faxri mooy sama ndam wa urwati mooy sama buum wa jaliis yi mooy sama toogaaleel ki may toogal di ko déglu mu may digal may def mu may tere may bàyyi mooy alquran waaye nag fàttewuma xadis mu ne bi ahadis yi zil mazayal makini damay mooy itam jàpp itam ci xadis yi borom ngëneel ya bu am daraja ko kooku mooy ahmadil xaamidina ahmada rawti wali rabbi bidaa ci lii muy alquran wa tilka ak xadis yooyee rukkoo ni ci laay jenge ba mën a yegg ci yàlla suñu borom tabaraka wa taala nii kon mooy ni nga xamante ni Serigne Touba ni la nekk waaye itam bokkoon na ci ay melokaanam moom Serigne Touba ak xeñtu gi mu doon xeñtu sunna moo di ne lépp loo xamante ni daf ko daan jël bala mu ko jël dana wax bismillah lépp lu daan teg itam bala mu ko teg dana wax bismillah te loolu ku nekk xam na ne ci sunna la nekkoon koo xamante ni lépp lu amul njariñ moo xam muy ay wax walla mu muy ay jëf sëriñ Touba loola daawu ca dugg daawu ko jëf daawu ko wax daawu ko digg kenn mësta fekk sëriñ Touba lu dul na da ko fekk muy kër kër yi liggéey wala muy tudd yàlla wala muy sant yàlla Serigne Bassirou mi ngi ciy nett li benn xissa ne benn bis euh, Sidi Mokhtar doomi Cheikh Sidi mu mag ma hmm? ñëwoon di siyaare si sëriñ bi ba dikkee sëriñ bi bëgg lool ci moom di ko teral itam moom seex Sidi moom doomi Cheikh Sidi mu mag ma la woon gane si woon sëriñ bi sëriñ bi di ko teral bëgg ci moom lool waaye Cheikh Sidi moom yi nag nekk di ku mën a jàmmante rek doppoonaan ko kayfal xaal yaa sëriñ bi na nga def na nga yendoog na nga fanaane di wax di wax di wax ba sàgg sëriñ bi ne ko xaalu naa tarku maa laa yaa ngi laaj nan lañ def day waaye mooy lépp lu amul njëriñ dañ koy bàyyi loola nag mu ne dafa meloon na kuy kafak moom waaye kafak sëriñ Tuubaa nag ci dëgg rek lay lalu ni nga xame ne kafak yónnente bi alayhi salaatu wasalaam daana kafaki saxaabaam waaye du wax lenn du jëf lenn lu dul ak dëgg kaana yumaasixu wala yaqulu illa xaqa loolu nga xamee tam lu amul njariñ bokkut ci mbiram tam daf ko royee ci sunna si yonente bi alayhi salaatu ndax yonente moo waxoon ne min xusni islaamil mar'i tarkuhu ma la yaani bokk na ci li rafetal lislaami nit ki lu amul njariñ mu bàyyi ko moo xam muy ay wax wala muy ay jëf xissa boobu tegtale ne la muy fonk seex siidee moomee lépp lépp lépp ba mu defee lu dul noona itam wala mu bëgg koo dugal ci lu mu bëggut daf koo xamal fa muy yem ne ko lépp lu amul njëriñ sunu mbir mooy lépp lu amul njëriñ ñu bàyyi ko sëriñ Basiru tam mi ngi nettaliwaat ne amoon na beneen taalibe bu kon ci sëriñ Touba ba mu ñëwee te rek moom itam dem ci suñ jàmmante yi nga xamante moom lañ miin ci suñ jamono ji rawatina naan ko kay fa xaalu ko kay fa aafiyatuka sëñ bi na yendoo naka sa jàmm naka yaram bi naka lii naka la di wax di wax di wax ba sàgg sëriñ bi daal na ko waaw jàmm ji nga may laaj ndax xam nga yow luy jàmm mel na waaja def na cel sëriñ bi xamal ko luy jàmm ne ko mooy al imaanu wal islaamu wal ixsaanu na jàmm mooy nga am ak gëm yàlla gu wér di jëfe sa lislaam na la ko yàlla digalee ca anam gëm gën a rafete te def ko ngir jëm yàlla ak rafetal say jikko te sax ca waxuñ nga jaar ca léeg-léeg wala bu la yëf yi dikkalee rek nga nga amul jël def ko waaye wa dawaamu alayha sax ci gu lu jafe-jafe la moo tax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam waxoon bu yàgg ne ahabul amali ilallahi adwamuha li gën sotti fa yàlla ci jëf yi mooy la ca nit ko saxal te di ko def ngi gëm yàlla kon ku ne am naa jàmm na natt foofu nga xam ne Sëriñ Tuubaa wax li wax ne mooy jàmm am ngëm yàlla di jëfe sa lislaam am jikko yu rafet te sax ca mu nekkoon koo xamante ni itam sunna moom moom rek la daa xëñtu ba lépp lu am ndeyjoor ak càmmooñ ndeyjoor ba lay jëfandikoo ndeyjoor ba lay jëfandikoo bu la dee digal sax ngay xelli kafe wala attaaya su fekkee tàmbali woo ca ndeyjoor mën naa fil sa loxo sax ngir jàngal la ni nga xamante ni jullit noonu la war a doxe ndax lislaam ak alquran na dafa tagg ñiy jëfandikoo ndeyjoor waa asxaabul yamini ma asxaabul yamin fii sidrin ñii jëfandikoo càmmiñ te mu ŋàññi leen waa asxaabu masxamati ma asxaabu masxama ak waa asxaabu simaali ma asxaabu simaali fii samoomin balaa yee jeex moo tax ci aw sol aw dàll wala ci dox wala ci njàppam wala ci mbiram yépp la bu nu amee nday joor ak càmmoñ nday joor ba la jiital loolu nag yonente bi alayhi salaatu wasalaam la anas ibnu malik nett li woon nee na kaana yujibuhu tayaamunu fi tanaulihi wa tarazulihi wa tahuurihi wa sa'nihi kullihi ku nekk xam ne kon foofu ku tënku ci sunnaa ngi noonu koo xam ne mbir mi lum tuuti tuuti tuuti la ca sunna digle moom lay defee moom Serigne Touba. Cheikh Mouhamadul Basir itam di nett li wax ne ci wane rek ne ni Serigne Touba fonki woon sunna mu ne benn bis am na benn taalibu sëriñ bi bu mag bu ñuy wax Mouhamad Fall taalibu sëriñ Touba bu mag bu tudd Mouhamad Fall gisoon na sëriñ Basiiru muy dem ci sëriñ Touba Mouhamad Fall moomee fab àddiyam jox ko sëriñ Basiiru ne ko boo demee nga joxal ma ko sëriñ Touba muy sama àddiya sëriñ Basiiru jël àddiya joojee mooy nett de moom ci boppam mu ne te jam jamono joojee xëy na ñawkat yi muy tajoor yi dañ daa ñaw poose bi mu féete càmmoñ ci mbubb yi poosab sëñ Basiru itam wax dëgg yàlla jiba ja féete càmmoñ nee na bi ko Mouhamad Fall joxe àddiyee ji mu dugal ko ci jiba jooju muy poos bi féete càmmoñ ci mbub mi daal di ñëw nag ci sëriñ bi ba mu ko nuyoo ba ko Mouhamad Fall day daf maa joxoon àddiya ngir ma jox la ko tàmbali nag di génne àddiya ja bi ko sëriñ bi gisee muy fob muy wëndi muy muy fab loxoom loxob càmmoñ moo gën a jubboog wet ak càmmoñ sëriñ Basiiru fab loxob càmmoñam di ko dugal ci poosab càmmoñam ngir génne àddiyee joojee sëriñ bi gëtt ko jëfandikool nday joor sëriñ Basiiru nee na ma am tiitaange lool ca loola nga xam ne damaa ñàkk pexe ba mbuub ma ci boppam laa wëlbati ba mu féete si nday joor ma mën a génne àddiyee joojee jox ko ko xoolal ma kooku ak mbir ma lam tuuti tuuti lum tuuti tuuti lum sew sew sew mu topp ca sunna ak itam yar ca njabootam na loolu itam beneen mbir la topp sunna yow rek góor-góorlu ca baax na kenn waxul ne baaxul waaye itam yar ca sa njaboot ak lum tuut tuut nga xamal leen ko itam beneen bind la bu ñuy jële foofee loolu misaal la bu wér ci ne Sëriñ Tuubaa daawul bàyyi lenn ci sunna moo xam muy lu bari wala muy lu tuuti am na tomb boo xam ne itam nag ci lañuy ñuy bëgg a duggaat mooy ubbeeku gi nga xamante ni Sëriñ Tuubaa ubbeeku woon na ko ci lépp lu baax ak képp ku baax kon balañ cee jàll itam ñu joxaat sëriñ bi. Euh, jërëjëf sëriñ Fallou kon mbokk yi ñoo ngi leen di fàttali na yéen a ngi diglu seen rajo Lamp Fall FM 97 point 4 lënkaloo ak 101 ca Ndakaaru ci canal 842 kaddu gi di fii ci Touba kër Serigne Afia ña ngi ci quartier Ndamatou kon mu mel ni Serigne bi e, wax ji am na solo lool ndax xamal nga ñu feeñu Serigne Touba at meeg ak turu Cheikh Ahmadou bàmba bi baat bi fan la cosaanoo xamal nga ñu lan mooy turu Xaadimu Rasuul wi sëriñ bi it fi mu jaar ci grawam léegi laaj bi ñuy duggee yow te nga junj ko sànq mooy. Sëriñ Touba ubbiku gum ubbiku woon euh, lu mel ni dañuy wax comme laaj bi istaamala cheikhul xadim al awraada kullaha falimaza mel ni Sëriñ Touba dafa mel ni euh, wérdo yépp wala li ci ëpp daana ko jëfandikoo lu ci mel ni wérdowu qaadir wala wérdo tiijaan wala yeneen wérdo ngir ubbiku gum ubbiku woon loolu lan moo ko waral Sëriñ Fallu waaw jërëjëf euh, buñ duggee ci loolu ku déggut ni ñuy waxe ak ni ñu gëstoo gëstu bi mën naa yaakaar ne dañoo génn sunna déedéet sunna dafa yaatu ndax sunna mooy lépp loo xam ne dafa jóge ci yonent bi alayhi salaatu salaam moo xam muy ay wax walla muy ay jëf wala muy loo xam ne dañ ko def ci kanam yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu gis ko ba noppi na ca cell wala loo xam ne dafay saxal melokaanu yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo xam muy melokaanu dundam wala melokaanu jikkoom kon sunna yaatu na lool kon bu dee waxtaan ci ubbeeku Serigne tuuba ci lépp lu baax ak képp ku baax itam ma ngay roy yonente bi alayhi salaatu wasalaam ndax yonente bi dafa dëkkoon madinatul munawara muy ba daa jëfandikoo jëflanteeg ña fa nekkut ay julli sax ay yahud kon loola ci ubbeeku la bokk kon Serigne Touba bi nga xamante ni ñëw na ngir yar nit ñi delloo leen ci yàlla itam dafa roy ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ak ubbeeku sunna soos bu daf ko roy ci roy yonent bi aleyhi salaatu wasalaam itam ca nam toppe woon ci Jibril aleyhi salaam mu mel ni ku koy jàngal ca guddi rañaan ga bañ yeggee ci wa ma minna illa lahu maqaamu maalum loola ci la sëriñ Touba roy ba topp itam jeexit ak jaar-jaari nit ñu baax ñi fi jaaroon képp koo xamante ni ku baaxoon nga sëriñ bi xam ne nit ku baax nga bu fekkente ni wuy ji nga sa borom daana dem ba yegg sax ca fañ la denc siyaare la sargal la ngir san baax ga su fekkee kuy dund nga mu dem ba yegg si cew ziyaara la loola nag ak ubbeeku munta weesu loola daa digal ay taalibe yi tam ñu siyaara ji képp kuy borom xam-xam bu jag wa zur xiyaaral ulama képp kuy borom xam-xam bu jag ndax yu jagut am na ak itam di siyaara ji nit ñu baax ñëpp ci kaw loolu nag ci la jëfandikoo mbooleem mbirdo yi ngir roy roy yonente bi alayhi salaatu wasalaam nam doon doxale ak jibril doonte ne nag topp ci nit di ko roy loola tegtale wu nekk nga roy daf laa gën loolu na ci nit ñi yeewu itam ngay roy nit te telewul ne kookee ngay roy daf laa gën ndax ku nekk xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax nañ ne mooy xayru xalqillah te mi ngi noonu alquran bam limee ay yonente yu bari ca sóoratul anam ca watil watilka na lim ay turi yonente yu baree baree bari ca jeexital ja dafa wax yonente bi ne ko ulaika allazina hada allahu fa bi hudaahu muqtadi gaa ñooñu ma la tuddal yàlla moo leen jubbanti jubal leen roy leen te yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mooy xayru xalqila te la ko saxal mooy wa is axaza allahu min annabiyina jooje loolu kon du tegtale nag ki ngay roy daf laa gën moo tax Sëriñ Tuubaa roy ci nit ñu baax ñi jëfandikoo seen wirdo yooyu mësta xëccoog nit ku baax ak mbaaxam waaye daf lay yéene sang mbaax topp la ca roy la ca ba nga xëy la nga amoon ci baax nga yéene ko ko këppal ko ko daana teral tam nit ñu baax ñi moo tax Sëriñ Tuubaa jëfandikoo na wirdu Xaadir ndax wax nañ ne mu ngi ko jële woon ci Mamoor Anta am ñu ne itam mi ngi ko jële woon ci Sëriñ bu bi daa nga ko jëfee lu tollook ay at jëfandikoo na itam wërdal imaamu saazali lu tolloog juróom-ñetti at nee nañ jëfandikoo na itam wërdal tijaan lu tolloog juróom-ñetti at moo tax jëmmi jamono lu ci nekk nag ab tolluwaay la woon jëmmi jamono moo tax sëriñ bi bindoon ne yaquulu ahmadul faqiiru jidda at tuubawiyu lqaadiriyu wirda alhamdulilahi ala kawni xadim bi xadrati lxutbi almukarrimi alkarim masaayixi sayiduna aljilaani wa saadali maahu tijaani jëmmi jamono bindoon na loolu xam ne ne ñooñu ñooy ay njiitam ci wàllu diine aseex abdul xaadir jeylaani aseex abul xasan al saadali aseex ahmad tijaani loola itam moo ko yóbboon ca Masaalikul Jinaan ba mu waxoon ne wirdu yépp ku ko jëfandikoo te sellal mën na laa yëgale ci yàlla fa kullu wirdin yuridul murida li xadratillaahi walan yaxiida bépp wirdoo nit ki jëf dana ko mën a yëgale ci yàlla mu ne moo xam wirdoo askanoo ci seex abdul qadir jeylaani wala mu askanoo ci seex ahmad tijaani wala mu askanoo ci keneen ku bokkut ak ñooñu ndax nee na ñooñu ñëpp ñu ngi ci njub ndax ñoom ñëpp dañuy woo taalibe yi ak ñi nam ma ci yàlla jëm leen ci yàlla daneen dañ leen di woo itam teg leen ci siraatal mustaqim moo tax mu teg ci ne fala tasxar ahad minhum bul saboote wala ngay reetaan kenn ci ñoom kon nag ki nga xam ne dafa dégg ñenn ñi ñuy wax seeni wirdo mu naan gaañaak ñuy tànqal wala dara feneen la ko war a roye ji waaye du ci xaadimu rasul ndax nee noon wala tasxar ahad minhum waaye wala tunkir alayhim wa abad bul wedd kenn ci ñoom loola ak ubbeeku mënu ko weesu moo tax nag yéene googu mu yéene woon nit ñu baax ñi seen baax gi roy leen ca ca lañ dem ba nit ñu baax ñooy itam lañ amoon sunu boroom baaxe ko ñu këppal ko ko loola danañ ci yegg si kanam waaye noonu la ubbeeku woon itam ci ngir yi ku nekk xam na ne biir lislaam dafa am ay école ci niñ déggee diine ji moo taxoon ca biir sindiidi mu daan def tawasul ci borom école yooyee muy mazahibul arbaa ma nga doon wax naan bi malikin zil mazaya saafiiyi abi xanifatin ahmadul mahmudiya di wax ba naan warathani fiqha al imaami malik alayhi ridwanul ilahi al malik la imaam Malik yoroon yàlla donn loona ma ko mooy wax naan qad quttalii minka munan latifa warastani fiqha abi xanifa al imaam abu xanifa itam lam amoon ci ne daana dem ci nit ñu baax ñooñu bu nekk dégg na maam Alaaji Malick Sëriñ Basiiru mooy nett ne mbokkam Sëriñ tubaa la te muy lu wér moom maam Alaaji Malick nekkoon koo xamante ni itam digganteem ak Sëriñ tubaa lu rafetoon la lu baax rek moo mas dox seen diggante daanañ ziyaarante itam Sëriñ Basiiru mi ngi nett ne Sëriñ tubaa demoon na njarnde dëkk la boo xam ne El Hadj si dafa dëkkoon mu demoon fa siyaare ji maam El Hadj si moomu ngir dox ak mbokk keroog ba nga xamante ni sëriñ bi mi ngi dellu sëriñ ba Basiru nett na maam El Hadj si dafa war aw fasam gunge ko sore sore sore sore nee na bi sëriñ bi nekkee ci géej gi itam seeni lettre ngi daa dox seen diggante musta dog dakk musta dog itam nee na mi ngi ciy fàttaliku boo xamante ni maam alaaj Malick si dafa joxoon Serigne Touba ab téere jox ko ko àddiya boole kook ñaari bayit bayit ya nee na Serigne Basiru nee mooy hadiyatun muujibuha ijtilaabu mahabbatin yaa ayuha alxubaabu adaama rabbuna lana xabla alwisaal wa kaffana charra alladi aada wasal nee ko loolu maa ngi la koy jox mu nekk hadiya joo xamante li ko waral mooy bëgg bijj ak xëcc ak mbëggeel ak sofeel ak cofeel suñu diggante yow soppe bi kon yàlla mi nga xamante ni moo man lépp yàlla na saxal buuba buum ak jokkoo suñu diggante yàlla moomu itam yàlla na ñu fegal ayu képp koo xam ne am noon nga wala ku ñuy jéem a song ba Basiiru nee na ba sëriñ Touba jotutee téere boobee ak ñaari bayit yooyee maam El malik si def sëriñ Touba daf ko tontu ca baxru ba wax ko ne ko jazaakumu xayral jazal wahaabu wa fi safal widaadi laa tartaabu fa kayfa laa wal mustafa al mujaabu imaamuna wal qitla laa nahaabu yàlla mi aji faye te am lépp yàlla na la yàlla fay waaye nag cofeel gi ak mbëggeel gi bu ci sikki sàkkal lu am la ndax mu ne cofeel gi ak mbëggeel gi nan lay bañ a mën a amee dañ am lenn njiit rek te mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam cofeel kon mënut a ñàkk am na suñ diggante te du dañ waaye nag wal xit la laa nahaabu noon bi nag moom wax dëgg ragaluñu loolu kon boo gisee ñu koy wax Serigne Touba radiyallahu anhu nit ñu baax ñëpp la la la la bokkoo woon di jëflanteeg ñoom di demlanteeg ñoom fonk leen ku nekk itam mu wàcc la sa barab ba nga xamante ni moom la la yàlla jox te nga yeyoo ko loolu itam mu nekk loo xamante ni lu ñu war a roy ci la ci sëriñ Touba radiyallahu anhu kon loolu la sëriñ Touba jaar roy ci nit ñu baax ñi ba yàlla baaxe ko wér doom bu màgg wooye di almaxuus min allahi bi wasitati rasulillahi taalibe yépp itam war koy jëfandikoo ndax bari nañu ko xamul tur bi sax far ginnaaw booba nag ci la bàyyi sëriñ yi jamonoom nag jàpp ci kenn ka muy njiit la di yonent bi alayhi salaatu wasalaam beneen bunt nag ubbeeku waaye nag liñ la doon wax ci ne roy ku baax ak yéene bu baax day tax sunu borom mbaax googee mu sédd la car wala sax mbaax googee kooka këppal la ko ngir liñ ko ko yéene moo dina jëmmi jamono dem na ba mu yegg ci wax ne kat la Seex Abdul Xaadir Jeylaani amoon yàlla jox na ko ko la nga xamante ni Abul Hasan As-Sazali amoon yàlla jox na ko ko la Seex Ahmad Tijaani amoon yàlla jox na ko lii qutta ma faaqa bihi al-Jaylaani alayhi ridwaanu allazi alaani ilaya qutta ma bihi Abul Hasan faaqa bi xidmati nabi jaddi al-Hasan tammantani bima bihi Tijaani faaqa wa kunta liya bil marjaani loolu mooy kon ubbeeku ci lépp lu baax ak képp ku baax mu des man ni ma leen ko waxe woon nag mbir la moo xamante ni itam ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam la ko roye woon ndax ku nekk xam na ne daana jëflanteeg ñi ay jullit sax wax nañ ne sax mbubb bi koŋam ba muy gàddaayo da ko tayle woon ci benn yahud moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñu dugg kon ci di sëriñ bi sooboo nag ci yar nit ñi bi mu xamee ne sunu borom tabarak wa taala daf koo boole nit ñi mu war leen teg ci siraatul mustaqim yëgal leen ci yàlla tam am ci ndigal nag xeet yan ñoo ko doon fekk si ak ci wan yoon la leen daa jaarale loolu ci lañ bëgg a dugg sëriñ Basiir wax ne yàlla su gisee defee ci jaamam bi ak mbëggeelam su yàlla bëggee jaamam bi day yëgal malaayika yépp ne leen sama jaam sàngam ma nekk ci kaw suuf dama koo bëgg bëgg la leen ma ko yëpp ñu ànd ko bëgg mu xiirtal mbindeefam yëpp itam ñu bëgg jaam boobee Serigne Bassirou wax na ne loolu dafa feeñ ci Serigne Touba moom day nekk na koo xam ne musta campagne nit ñi moom Serigne Touba daf koo bañ ba ci njëlbeenam dafa doon daw nit ñi ngir bëgg wéet gën a mën a jaam boroomam waaye nit ñi liñ gis ci moom ñoo ko xam ba topp ko ba demee ba am ndigal ci yar leen nag ci la jóg nag teg lañ ci siraatal mustaqim yoon woowee nga xam ne nag ci la jaaroon di yoon wu jafe-jafe-jafe yoo xamante ni taalibeem yu mag ya ca jaaroon tam buñ la nettalee fañ jaaroon da nga xamante ni toog ne murit saadix laa yomb na ci wax waaye cey boo xamoon taalibe yu mag ya fañ jaaroon da xam ne sonnoon nañ lool ñi daan fekk sëriñ bi nag ñaari xaaj rek lañu am na ñoo xam ne dañoo dégg barke bi am ñu ñëw di sàkku si barke bëgg itam mu jox leen ay laayant biir jox leen ay ndénkaan sa leen ay wirdo itam yoo xam ne benn mu jële ko ci alquran wala wirdo yooyu mu jële ko ci ñi nga xamante ni ay sëriñ lañ woon yoo xam ne amoon nañ ay wirdo tam am digal ci joxe wirdo yooyee beneen kuréel ba nekk ñoo xamante ni ñoom li sëriñ bi nekkee da leen a doy ñu ñëw na ko jébbal nañ la suñu bopp àdduna ak alaxira amuñ lu ñuy bëgg amoon lu ñu wut lu dul la nga bëgg ak la ngay ñooñee nag mooy ñi ñuy tudde ay murit mooy ña nga xamante ni dañoo gis ci sëriñ bi gis ne ay yëngutoom ak i dalam yépp dara dara dara génn ci yàlla suñu borom tabaraka wa taala ñooñee lim bu néew boobee nga xamante ni ca la sëriñ ba defoon lay mel ne tas daara jala te muy xew-xew bu rëy rëy rëy bu raglu ndaxte koo xam ne dañ laa xamoon ci jàng ak jàngale nga xëy ne koo xamante ni jàng rek moo la fi indi woon abal ma loola bu doon jëmmi jamono ju ne diw sàngam dafa tas këram waaye nag bàyyiwut jàngale yoonu jàngale wam yoroon la soppi yoonu tarbiya wi itam moom la soppi ndaxte nit du ne dama bàyyi jàngale ba noppi wëlbatiku samp ay jàngalekat di taalif ay téere yoo xam ne nee neen day digle ngeen jàng kon bàyyiwut jàngale dafa soppi yoon wam daan yare ak yoon wam daan jàngale ñooñee muy taalibe yu néew yam àndal ci njëlbeen ga tàmbale ko ca Mbàkke Kajoor ñooñee daf leen daa yar ci feral seen bakkan ci lépp loo xam ne mooy bànneexu àdduna daf leen daa gëmloo ne daraje àdduna dangeen koy génn ci seen bopp alale àdduna dangeen koy génn ci seen bopp daf leen daa xiirtal ci liggéey bu baax bu metti lool leen daa xiirtal itam ci sellal seen yéene ci lépp lu ñuy def daf leen daa xiir talitam ci seet li nga xamante ni moom la diine digle ñu koy saytu di ko jéem wut ci lépp lu ñu nekk waaye am na loo xam ne itam jar naa xam le moo di ne la nga xamante ni ku bu mbindeef ñëwee ne Serigne Touba jébbal naa la sama bopp àdduna ak àllaaxira lam la daa njëkk a digal mooy daf lay jàngal sa warte fi diine mooy safara tey jëmm ngir nga man koo xam ba noppi mooy daf lay jàngal bu noppee digal la dugal la ci liggéey bu mette mett ngir bëgg a dindi ci sa bopp ak saw yaram tàyyeel moo tax nag kon ngir nga nekk murit boo xamante ni bu ak taalibeem dëggu la mënoo ñàkk a sonn fa laysat iradatullahi saadiqa mumahadatan bil wurudil jamila wa laysat mutaatan dunyawiyatan baxta ak taalibe yombut ku mel ne maam alaaji mbàkke bu so nga xamante ni ba sëriñ bay taarif masaalikul naan benn tibb cere boobu lañ daa lekk vingt quatre heures ba vingt quatre heures yi delsi bis ba ba waxtoo delsiwaat ku nekk xam ne ne kooko sonnoon na ñooñu nag mu leen daa yare ci ñett yëf xam-xam ak jaamu yàlla ak liggéey xam ak jaamu yàlla ak liggéey loola itam dara génn ci sunna dara génn ci ndigalal yonente bi alayhi salaatu wasalaam dara génn ci itam lislaam ndaxte kat am na lettre boo xamante ni sëriñ Mouhamadul Amin Diop Dagana andi na ko ci téere bi mu tuddee Irwa un Nadim téere bu bu am solo la mu cay wax ne sëriñ Tuubaa dafa bind ab lettre bu arab mu wax ci ne innahu minni ila jamii al muridina wal muridat salaamun tayibun yaasimu al jamii min al maridina wal maridat wa yudxilu al jamii fi salaamati wal aafiya bi jaahi nabi al karim amma baad fa inni amartu kulla man taallaqa bi li wajhi llahi taala alkarim bi taallumi alaqaidi wa ahkaami altahaarati wa salaati wa siyaami wa gayri dalika wa inni qad takallaftu lakum lakin bi tawaalifa ba lettre ba jeex digal naa képp ku aju ci man te jëmmi yàlla tax nga aju ci man nga jàngi pas-pas ba mën a xam nan ngay gëmee yàlla gëm gu digal naa la nga jàngi ba mën a xam ni ngay laabe sangu farataak jàpp ak ni ngay julleeg ni ngay ajeeg ni ngay woore mu mel ne dañ na ko ndigal loolu loon ci yoral mu ne danaa leen taalifal ay téere yoo xamante ni su ngeen ko ubbee man caa xame loole loole mu digge woon nag def na ko taalif na ay téere yoo xamante ni bokkute xasida yi nit ñi di barkeeloo waaye xas ay téere la yoo xamante ni jàngaleem diine ni ñuy julleeg ni ñuy laabeeg ni ñuy wooreeg ni ñuy aje moo ca nekk tazawudu sixaar ca la bokk fa muy waxee ne yaa ayyuha sibyaanu laa tastaxilu an il huda wa bil ulum istaxiloo yéen ndaw ñi bu leen yittewoo lu dul xam-xam akum jub wastaxilu bil xifzi wa tilaawa wajtanibu majalis saqaawa na ngeen di soxla woo mokkal alquran ak jàng te mooy moytandiku barab bi nga xamante ni texee di rek lay jur tey taxoog nit ñu baax ñi nag mag ñi nga xam ne itam mbaax dafa mel ne dafa raw ci ñoom mu ne leen dab dabaatal leen ndax ku dab dabaatal jéem a baax itam ëllëg fa nit ñu baax ñi yegg mën nga faa yegg loolu ci tasawudu saxaar la ko wax muy téere bu am solo bariwaa na ci taalibe yoo xamante ni téere yi fi nar a tudd nii mosuñ koo dégg tasawudu saxaar ak noonu naaju xadaayil xaaj muy téere boo xam ne yar ak nit kii wala xale bi nan la war a jëflanteeg ki ko mag nan la war a jëflanteeg ki ko féete ndaw nan la war a jëflanteeg ki mu tollool ak maas nan la war a jëflanteeg sëriñam nan la war a jëflanteeg ñi mu àndal di tukki téere la bu am solo muy Nahju Qadaa'il Haaj mag ña ko xamoon moom daanañ ko fonk ba ku ma saa def ndul noonu ñu ne xanaa da nga jàngul Nahju muy ñaareelu téere Tazawudu Subaan nag fa muy waxee neen yaa ayuha subbaanu in xiftum xajal fa qaddimoo taalluman ala amal yéen waxambaane yi yéen ndaw ñi su fekkee ragal ngeen gàcc ak àdduna ak àllaaxira bala ngeen a jëf dara na ngeen jàngi wa man nahaakum an taallumi fa nahyuhu ila dalaali yantami ku leen teree jàng ci réer la leen jëmi wa man nahaakum an taallumi fa huwa xalifatu laayinil mujrimin ku leen teree jàng moo fi wuute seytaane ba yeboo seytaan napp dina lu mu ne loonu yàq moo ko yàq ñu ne nag néewaa a nga gis kun gàddu yaram ne doomam doo fi jànge loolu mosuñ koo gis waaye dañuy teg ay gàllankoor yoo xam ne mook tere jàng ñoo yem sama place bi amul kenn ku ma ci mën a xëyal sama doom jëma fee xëyal kon mun a jàng loolu gàllankoor la yaa ngi mel ne kuy tere sama tool bee naka noonu loolu xeeti tere la ci jàng kon nañ koy moytandiku naka noonu itam maxaaliqu niiraan mawaahibul quddus naka noonu itam al jawharu nafis téere ba nga xam ne fala faram fàccee lu jëm ci jëw ak ni bare ci suñ jamono ji ak wax lu dul noona ak ni mu bare ci suñ jamono ji ak rambaaj loolu téere la yoo xamante ni jàng ko mënta ñàkk ci taalibe boo xamante ni bëgg naa jëfee ndigal sëriñ bi masaalikul jinaan saadatu tullaab zaadu zawit taallum bari na kon loolee mu digg woon def na ko waaye moo digle woon itam ne taalibe yi nañuy sàkku ji xam-xam doonte ne làkk wañ koy jànge sax du làkku arab làkk wa nga xam nañ la ko jàngal ci wolof sax ba nga xam ko wax ne koo xamante ni jàngiwut ba xam sa wartee fi diine góorgóorlu woo ba mën koo xam sax ci làkk wi nga nàmp nee na ëllëg boo amee koy yedd bul yedd kenn ku sa bopp waxoon na itam ñeneen xam-xam yi bari na waaye am na xam-xam yu ëpp njariñ muy xam-xam yu diine yi waxoon ne wa afyadul ulumi lil qulubi ilmul ubudiyati wa rububi wa baadahu tafsiru lil qurani summa al xadisu qaalahu daymaani nee na xam-xam yi gën yi mën a defar xol mooy xam-xam bi ngay xamee noo jaamoo yalla te jaamu ga sell te sunu borom mën koo nangu mooy xam-xam ba nga xam ne da nga ca mën a xamee sunu borom tabaraka wa la mooy xam-xam ba nga xam ne da nga ca mën a amee tafsir mën a firi alquran waaye mooy xam-xam nga xamante ni danañ ca mën a xamee xadis baatu tafsir bi mu fi tudd nag ci la ñuy dégg na sëriñ bi firi terewut kuy firi alquran lam tere daal mooy la ñëpp tere ku bëgg a te xamut muy kuy teñaxu ñëpp ko tere demoon na bay yegg di wax ne na ngeen xam ne lii rawan li nit ñi rawantee nee na ci ñaari yëf la rek xam-xam ak diine demoon na bay wax ne itam xam-xam day su fekkee yóbbewu nit ki ci njub alkande rek la ko jëm bay wax itam ne xam-xam day mooy la nga xamante ni ka ko xam dana ko jural ak ragal yàlla waaye koo xam ne amul ragal yàlla googee ku réer nga dem bay wax naan ku ragalul yàlla daal doo borom xam-xam inna alladi lam yaxsha rabbal aalamin laysa bi aalimin walaw af na funun kon sëriñ bi wax na ña ko fekke woon dégg ko mu jëf ña ko fekk woon gis ko mu bind wàcc fi bokk na ca lam bindoon nag lam waxoon ne yabus uluma diini xatti mujaddidan li nahji nabi bil xatti is rasmuhu afa nee na li nga xamante ni moom la sama mbind di yàbbi mooy xam-xami diine ngir yeesal xàll bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam andi woon muy sariya ju leer nàññi ginnaaw ba mu ràppe wax na yuqarribu taali fi lulum allati na at ila nnaasi musanhum fuaadi bihi afa nee na sama taalif yi man Sëriñ Tuubaa dafay jegeel xam-xam yi nga xam ne dafa sori woon nit ñi dem ba nekkat li ma yóbbu ci may bind de weesuwul lenn lu dul laa biir défiré daat nii ilal xatti nasihatu lil wara li wajhi allazi li qaada ajran wa ashafa ma ngi ko wax ci xasid ak safaru matax sayidina loolu nag njabootam gi te moom la ñuy fedd rek Cheikh Mouhamadul Mourtada waxoon ne ku bëgg xam Sëriñ Tuuba ak li mu bëgg ci taalib yi na jàng ci taalifam yi mu taalif loolu kon mooy xam-xam ak ni ko sëriñ Touba fonke woon ak ni mu ci xiirtale taalibe yi ak lim ci daj ngir bëgg taalibe yi am xam-xam kon la njëkk ca lam leen daan yare mooy xam-xam boobu jàng leen seen warte fi diine bañ xam ko ñaareel ba mooy jaamu yàlla li nga xam ba noppi na nga ko jëfe daan leen ci tànn ndax moom la daa seral xolam moom sëriñ Touba mooy ak jaamu yàlla sëriñ Basiiru wax na ne sëriñ Tuubaa nee na léeg-léeg de wopp daama daaneel ba sonal ma lool jeexal sama kàttan lool ba fa ma tëdd daanaka duma fa mën a jóg waaye su ma déggee ñu ne allahu akbar nodd damay mel ne kuñ yeewoon ak i buum yeewi la ma ànd ak cawarte lool alayhi salaatu wasalaam moo xam ne dafa jaamoon yàlla saxu ci ay la ba tànkam ya newi waaye Sëriñ Tuubaa fonk gam fonkoon jaamu yàlla taxoon na ba nga xamante ni waxtu julli su masaan a jot deefut yëngal lenn lenn ci biir kër gi lu dul ne dañoo julli ba noppi nit sax su fekkee mas na faa ñëw te xamut aada joojee ba waxtu julli muy yëngal dara bu boobaa bu noppee sëriñ ba dana ko diggaale moom su fekkente ni sax ab liggéey lañ nekkoon lu mel ne rabat wala sàkket waxtu julli jot wala ñu nodd ña doon sàkket wala ñooy rabat nekk ci seen xir ba bañ a continuer ca loola bañ a julli ji su noppee day laajte fa rabat ma tolloon wala fa sàkket wa tolloon ñu wutal ko màndarga teqar ñi ko ñoo ñee dem julli ji ba noppi doog dellu siwaat rabbaat loole wala ñu sàkkataat ko loola fonk jaamu yàlla mënut a weesu loolu su dee am mbay mu wutal ko màndarga nit ba mbay ma ñor loole ñu dund ko sarqa ko ngir jëm yàlla ngir na ci waxtu yàlla lañ ko defoon loolu dund la boo xamante ni sëriñ Basiiru moo ko nettali ñu war koo jëlee itam ci dund Xaadimu Rasuul nee na suñ nekkee ci bëccëgu koor nee na sëriñ tubaa ku wóorutoon te amoo ngant daawu la nangoo jëfandikoo ci lenn lenn lenn lenn sëriñ basiru ma ko wax nee na wa ida kaana fi nahari ramadan aydan fa kadalika man lam yasum laa yaqbalu an yastacmilahu fi cheyin daawu ko nangoo jëfandikoo ci lenn ku wóorut te amoo ngant sëriñ tubaa sëriñ basiru nee na daawu la nangoo jëfandikoo ci lenn mooy du la digal dara du la ndax dafa fonkoon kor banaan yaa xayra dayfin ata bil bisri wal madadi ahlan tarxiban bila adadi looloo tax nag kon yoon wii ci la Sëriñ Tuubaa jaaroon yar ci taalibeem yu mag ya képp koo xamante ni itam aju nga ci moom itam daf la daa tàggat ci ak jaam yàlla ndax moo daan wax naan ak tàggat la itam ci sunna moo daa wax naan man abada ilahan gayra allahi fa sa yaalamu annahu laa ilaha illa allah ku jaamu beneen yàlla loo fent ne yàlla la te du yàlla ju dëgg-dëgg ja nee na ëllëg dana xam ne benn buur amul bu ñuy bu ñuy jaamu te mu yeyoo jaamu ko bu dul yàlla waaye wa man abada allaha bi gayri sunnati muhammadin rasulillah fa sa yaalamu anna muhammadan rasulullah ku jóg itam nag ne damay jaamu yàlla mu dëgg dëgg mu nag waaye nag damay fent sama yoonu ban bopp bàyyi fi la yónnante ba xàlloon nee na ëllëg dana xam ne Muhammad day ndawal yàlla jaamu yàlla googu sëriñ bi te di ko digal nekk ca mooy gan mooy jaamu yàlla guñ tabax ci xam-xam jaamu yàlla kenn du ko tëñëf ci xam-xamu diine bu wër cëng ci lañ koy teg ndaxte kat jamono ya nga xamante ni borom xam-xam yaa ngay werante ci kuy peñaxu ak julleem xàmmeewut farata yaag sunna yee te werante wa bari lool jeexital ba sëriñ ba moom daf caa wax ci gisam qultu waqad xarama rabbuna ala kulli mukallafin ala ma nuqila filan bi gayri ilmi xukmi saran man kaana jaahilan bi fardihi walam yasal fa nafsahu abadahu daram nee na ku xamul na dem laaj ndax su fekkee xamoo ba noppi laa xamoo ba noppi nanguwoo laaj yi nee na bu amee kuñ tooñ day yaa tooñ sa bopp ka wax loola nag kam nuru ne moom la àndal mooy ka wax ne ak jaamu yàlla deefu ko tañaxu dis koy jàng teg ko ci xam-xamu diine bu wér kon jaamu yàlla gi nga xamante ni moom la Sëñ Tuubaa daa dëkkoo te di ko digal taalibe yi mooy guñ tabax ci xam-xamu diine bu wér waaye fonk gam fonkoon ak jaamu yàlla moo taxoon mu digle woon ñu tabax jumaa ju mag jii ci Touba dénkaane la boo xamante ni Serigne tubaa moo ko joxe xam nga Serigne Touba lu ko ñor ba mu ci ne taalibe bu nekk na joxe nàngam ci xaalis loola moom ak nam doya woon xaalis loola xam nga ne ñor ko digle woon na nag ku nekk joxe ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett bopp bu nekk ngir taxawal jumaay Touba xamle woon na itam ne. bu ko nit ñi defee mooy li gën ci ñoom suñ ko defut tam dana am te ku ci feeñ itam dootoo dëpp ba faw moo tax ñu tàmbali jumaa ji ci jamonoom ba tàmbali indi suuf seek yooyu sëriñ bi bàyyi ko fi wuy ji boromam seex Mouhamadou Moustapha jóg taxaw ca ginnaaw ba seex Mouhamadou Fatick yegg ko ci le cent juin 1963 dépensé ci lu toll ak juróom-ñetti millions ci ay francs ca jamono joojee loo xamante ni bokkut ak liggéey bu mag bi nga xam ne taalibe yi daan nañ ko yenu di jële ay dor doj ca ndokk ak tojam doj ak sëkk ba ak li nga xam dañ ko doon def ngir jëmmi yàlla ak jëmmi xaadimu rasul te kenn daaw lañ ca fay loolu dugg ci huit cent millions yi waaye nag sëriñ bi bu diglee lu toll noonu muy naal boobu di jumaa jooju ba yàlla sottal ko mu noppi ndax dafa jublu woon rek yëkkati ab tabax bu rafet ci diggam péncam rek naam waaw bëgg na tabax bu rafet loolu waaye du loolu rek dafa bëgg a xam le ne yoonam bii mu xàll lislaam yi kese kese la bëgg a yëkkati tam baatu laa ilaha illallah muhammad rasulullah baat boo xam ne fanweeri at ak ñett Serigne Touba am na ko ci loxol tubaab bi 1895 ba 1927 Serigne Touba jóge ko ci loxol tubaab bi ngir kawel baat boobu ak itam jumaa ji des fi nag nekk luy seere loo xamante ni lu mën a tuumaal murit gi ku taxaw ci penc mi xam ne ki tabax lu lii dafa jullit ak itam mu dëggal ñaanam googee mu ñaanoon nag ca Matlabul Fawzayni ba muy sañ ci Tuubaa ne wal tusbitan fiihi jamaatan tuqiim as-salawaati al-xamsa dëban yaa xakiim yàlla na nga fi saxal mbooloo muy taxawal julli juróom googu ñaan bu dëggu la lum liw liw ak lum tàng-tàng jumaa jaa ngay nodd ñun ñaa ngay julli moo tax mu ne woon waqal nabiyul xaasimiyi ummata wa salimu xiina ataahu sunnata nee na yonente bi alayhi salaatu wasalaam fegal na lu bon aw xeetam xeetam wa itam mucc nañ bañ nangoo topp topp sunnaam sa waylun liman bada lahum siraafu an sunnati yi aw inxiraafu nee na te ñeel na képp koo xamante ni dafa bëgg a bàyyi sunna si yonente bi alayhi salaatu wasalaam dem mooy ci leneen wala mu bëgg jeng bàyyi sunna si yonente bi kon nag su fekkente ni nit ki dafa bëgg a nekk ab jullit nekk ab taalibe bu ab dëggu ak ngëmam mat day roy ci ku mel ni kii di Seex Ahmadu Bamba moom moom mi nga xamante ni kat moo sànni woon dërëm ba ci géej ga ngir wéetal sunu borom tabaraka wa taala ba wax ni thabattu tawxiidi li waaxidin qahar li yalida man ixtafa wa man dahar loola la la muy tegtale mooy fonk gum fonk julli te nag kilifa yu mag yi ak taaliba yu mag yi waroon Sëriñ Tuuba moom ay jaamukat yàlla bare baree baree baree bare bi kon mu baaxoon suñu ko waxtu mayee ñu tudd ci as su le ne kat loole mu daa wax muy ay théorie daan ko jëf ñu koy gis am nañu ko jëf ci kanamam ak ci ginnaawam ci taalibe mel ni Aseexu Abdourahman Lo ku mel ne Sëriñ Daaru Asan Njaay ku mel ne sax magam jooju di Serigne Momar Diarra Cheikh Abdourahmane Lo dey liggéeyal na alquran lu tolloog ñeent fukki at bokk ci njëkk ñu njëkk a topp Serigne bi itam ñeent fukki at yu jàngale alquran jàngukaayam ba muy daara ja nekkoon lu barke waa kër Serigne bi ñu bari mokkal fa alquran ak doomi taalibe yi daan jàng alquran di ko naafila ci genn guddi gu nekk ci ñaari rakka ñaari rakka mu tari ci kaamilu alquran kooka ku nekk xam na ne sori woon na ci jaamu yàlla boo demee ndaam ba léegi ñu won la néeg ba ko daan defe benn bis ma ngay tararari ci rakka bu njëkk ba tàmbalee faatiha ba far yegg si suratul mulk tabaaraka lazi biyadil mulk fàttaliku ne sëggagul mu doog di sëgg jàng mulki ak naas ba ci naas booba mooy ka nga xam ne itam dafa dëkk woon jàng alquran noonu waaye loola jaamu yàllaam gu tar googu itam daawul dox digganteem ak nit ñi ca la war ci ñoom ci seen diggante ak moom di seeti gan ñi te nee ab coono itam daawoo ko gis ci kanam xar kanamu Cheikh Abdourahmane boobu sëriñ Basiru nee benn bis dafa doon waxtaan ak Cheikh Abdourahmane Lo Cheikh Abdourahmane Lo ne ko ah sëñ Basiiru man de fi nii sama juróom-ñaar fukki at tegal na sëñ Abdourahmane Lo moo koy nekk ne ko sama juróom-ñaar fukki at tegal na waaye du ma yëg ab coona wala ak tàyyeel ci sama ñaari rakkaay yi nga xamante ni moom laay jublu guddi gu nekk te ci jàng Alxuraan xool leen kooku ba noppi sëñ Basiru nee na la may yéemu lool ci sëñ Abdourahmane loolu ndekkate moom yéemut boppam ma nga yéem keneen muy Seex Ibrahima Fall ndax kër kër ja muy def ci liggéey loo xamante ni lu maslaxa daari bi ma nga ca nee na moom la ko gën a yéemaat sëñ Basiru mooy kii li ma koy yéem lépp muy yéem keneen mu ne kon kat gaa yi ñéem ñëpp a yem muy nett li ba tey ne waaw ka ca topp ko muy Serigne Mamar Diarra téeméeri rakkaan la daa julli guddi guddi ay naafila laa wax bokkuma waxuma ay julli yi juróom naafila yi téeméeri rakkaan guddi guddi Mamar Diarra bal bi nga xamante ni moom lañ ko tegaloon ci néegam ngir bu ma xawee sonn ci taxawaay bu mett bi mu cay jàppandu dafa dem ba loxo ya marqué ja ni nga xam ne ay buum lay def euh, buumi teen ni lay def ci bindab teen di ca marqué noonu la loxo ya Maamoor Jaara marke woon ca balgande ba mu daa jëfandu ngir yàgg a julli fi mu daan julli dem ba soppeeku lu mel ne kàmb ngir yàgg a rukon ak a moo tax daana wax ne Sëriñ Tuuba dafay kiimaane suñu borom waaye abid la xaafis la karim la jaamukatu yàlla la ku mokkat alquran la ku tabe la ku baax la te wax na dëgg waaye Sëriñ Daaru Asan woorkat bu mag la woon ku yàgg ànd ak Sëriñ Tuuba ànd ak moom tam lu mat ñeent fukki at bu mënoon a jaam boroomam la ci daawul dakkal jàngam alquraanam bi ku mënoon na beru nit ñi ku yàgg ànd ak sëriñ looy téef mag ma maamoor jaara yi di nekkoon wëllëre ba benn bis maamoor jaara yi yónnee ndaw ci sëriñ daaru asan yaa ne dama koo gëj a gis nga koy won ndaw la ne ko boo demee nga won ko sëñ Mamad Jaara ne ko ba ma gisee ndaw lii ba léegi àndatuma ak sama sago bëggatuma dara ci àdduna te moo ne moo jaar foofu ñu la tuddal léegi ci jàmm kon nag ñu ne wa inna haulaai la misaalu sidqin min qawmihi alxaqiqiyin alladina wafaw maahu bi ahdi waqtadu bihi wa in lam yasuqu lahu ñii mooy ñu dëggu ña àndoon ak Serigne tubaab misaal lañ ci waaye bul laaj ku mel ne maam lu Ibrahima Mbacke bul laaj ku mel ne maam El Hadj Mbacke ak sëñ Mamadou Lamine Diop Dagana sëñ Mamadou Gueye Diamoune sëñ Mor ngoone Fall ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni buñ leen fi doon tudd di wax seen jaar-jaar fi la fanaan kon loolu mooy xam-xam bi bi daan yare loolu mooy jaamu yàlla gi loolu mooy ci seere yi. loolu mooy lenn ci ñi nga xamante ni tudd nañ leen fii ci guddi gi ñuy tegtale ne kat ay taalibe yi Sëriñ Tuubaa la yu jaaroon ca jéego yam jaaroon te kuy nekk ab taalibe itam war a roy ci mu des nag liggéey bi mu des nag liggéey bi ci yoonu Serigne Touba lu ñu fonk fonk mu nekk loo xamante ni nim daan sonne ci njàng mi njàngale mi daa ko sonne itam ci jaamu yàlla gi ni laa daa sonne itam ci xiirtal taalibe yi ci ñuy liggéey ngir ñu am loo xamante ni dinañ ca sukkandiku ba mën a jaamu borom bi tabaraka wa taala moo tax ñi nga xamante dañoo bëgg regle seen problème yu ak wàll wàllu économie buñ jàppee ci principe yi mouridisme andi mën nañ koo jëriñoo ndax ku nekk xam na ne baat yii ci ñoom la siwee lu mel ne ñaq jëriñu murid ca der ak topp ndigal ay baat la yoo xamante ni donte na gàtt na woyof na itam ciy lim ci jeex yi ciy lañ jaare itam ba am seen ciwte giñ am ci wàllu économique ba jàmbur yi jóge fi nekk ñëw di seet si tariqa bi ak fii nga xamante ni fi la yegg si tam ba mu yegg ci mel ne koom-koom dong ko taxoon a jóg te lenn la ca taxu ko war a jóg sax waaye lañ gënoon a siiw bi mooy mbay mbay dafa nekk loo xamante ni ci lañ gën a mën a amee lu lew moo tax si ñu daan bay di ci dund ci dundal seenu njaboot ngir ñu mën cee am lu lew ndax lekk lu lew mooy tax nit ki mën a jaamu yàlla jaamu yàlla ku gu ñu nangu kon dénkaane bii nga xamante ni sëriñ Marouba ba Guèye wax na ne Cheikh Mahamad Basir la ko nett ne sëriñ bi bu muy dem ca géej gi daf leen waxoon ne eh yéen taalibe yi mën ngeen a dellu te taqoog topp yàlla ndax bàyyee naa leen koo xamante ni kat mosuma koo dénk lenn lenn lenn gis ca lu ma naqari te kooku mooy yàlla sunu borom tabaraka wa taala waaye itam principe yooyu li ko gën a saxal ba nga xamante ni yegg nañ foofu ci wàllu économie dara dara weesalu ko lu dul dénkaani sëriñ Touba ak njàngaleem yañ nangoon a topp ndax waxoon naa leen ci biir téere yañ muy jàngal ay taalibeem di leen ci yar nax ju xaaj ma ngi fay wax naan fa daatun waraaxatun lan yuuthira saxsan araada an yakuna musira nee na ku bëgg a tekki day soreeg ñaar yi ku bëgg tekki day soreeg ñaar yi tekkeeral ak bëggam noflaay is minhuma laysa yajiu xayru bal minhuma yati l murida dayru nee aw yiw du jóge ci tekkeeral ak bëggam noflaay ak yàccaaral nee na loraa nga rekk ci di wax banaan waalam bi ann al majda laa yunaadu laa bi qadril kaddi fii maa qaal nee tedd nga ku ko bëgg am danga nga sonn da sonn te itam ca sa kem coono ba nga daj rek ci la sa tedd ñu la nga di toll loolu kon liggéey bi la mu dina kon nag képp koo xamante nii yaa ngi aju ci murid gi war ngaa jàpp ci ñett yooyu nga xamante ni moom lañ fi tudd muy jaamu yàlla muy jàng xam-xam ba xam ko jëfe ko ci jaamu yàlla waaye nangoo liggéey itam kon ñi nga xam ne dañuy wut bëgg batal xaw mi ni ñu tudde héros national nañ jàpp ci kii di xaadimu rasul ndax mooy kenn ki nga xamante ni bu yàggoon ba yëf ya tàngee tubaab bi nekk fi moo waxoon ne fa laysa yujibu sawaadu jismi safahatal fata wa su al fahmi der bu ñuul taxul nit ki ak déggam des wala am xelam naqari loola nag fii mu yegg yé taalibe mu yegg fii tam tegtale na loolu lu dëggoo dëgg la ñett yooyu kon muy xam-xam jaamu yàlla ak liggéey mën nañ fee taxoonu bu fekkente ne waxtu wi des na itam ñu mën a jàll ba ci kanam jërëjëf sëriñ Fallou Euh, mbokk yi kon ñoo ngi leen di fàttali nag yéen a ngi déglu seen rajo Lamp Fall FM 87.4 lënkaloo ak 100.7 canal 842 kaddu gi di bawoo fii ci Touba Mbacké ci quartier Ndamaatu fii ci kër Serigne Afia Niang mu mel ni rek xañ na waxtu wi ñu war a ubbi ligne bi jot na. kon ñoo ngi ñaan su fekkee ne suñ mbokk africatel yi ñu ngi ñuy dégg gannaaw buñu leen nuyoo ziara leen ñu ubbi ñu mbedd mi rek képp koo xamante ni bëgg ngaa jokkoog euh, waa jataay bi mën naa woote ci 628 17 77 628 17 77 41 99 gannaaw boo defee indicatif bi mooy ñi nga xamante ni ñoo ñuy diglu ci bitim réew kon ni ko sëriñ Fallou junjee sànq rek kon day mel ni ci tënk rek sëriñ Touba moom kon loolu ñuy wax sunna daf ko dundoon moom ci boppam sëriñ Fallou ñëw na ci ba ko dundee ci boppam yëmut ci dund gi waaye da koo dundulu def ko ci ay nit bañ koy dund ñooña def ko ci ñeneen kon day mel ni sëriñ tubaa ci boppam bim ñëwee jamono moom ñëwut ngir sos dafa ñëw ngir sof ñaari baati wolof yu jege niroo waaye bokkuñ sos ak sof sëriñ tubaa sosul dafa sof ndax nam ko doon misaale rek dafa mel ni waaw mel na ni am na mbokk mu dugg ci bismillah waaleykum salaam wa rahmatullah waaw tur yi waaw wàllu bor ay boroom dafa ëpp ah. waa baax na léegi sëñ baa ngi lay dégg incha allah na ci tontu baax na jërëjëf ñaa ngi sant mbokk moomu ci dugg gi mu dugg kon ni ma ko doon waxee rek day mel ni moom bi mu ñëwee euh, dafa fekk lislaam ci boppam bu doon jëmm ñi ne wéré di dal na ko bi mu ñëwee loolu ñuy wax passe visite la ko def bi mu ko defee ba noppi gis ne jàngoro ji kat na ko waxee ca hada wa innama alayhi almuqtafa li kasrati aljahli ala nnaas ixtafa kon jàngoro ji mooy loolu kon yoon wi nga xamante ni moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam jaaroon saxaaba yi jaar ci sëriñ su baax si jaaroon ci yooyu yëpp bi mu ñëwee dafa mel ni dafa fekk mu ràbb ba kenn xàmmeetu ko sunna ak bidaa yépp jaxasoo moom mu ñëw xalaat ko ba yoon wi sell bismillah bismillah waaleykum salaam turu baax bi sëñ Mor Ndiaye fooy woote waaw bismillah uh-huh. jërëjëf jërëjëf waaw jërëjëf Mhm. Mhm. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf dégg nga wallaahi lu wér la jërëjëf Serigne Mor Ndiaye mi ngi wootee ba Dakar ñu ngi lay sant bu baax ci kàddu yu rafet yooyu kon niñ ko waxee woon rek ah kon moom bi mu ñëwee bi ko seetee xam ne loolu mooy wéradi gi dafa jóg jël engagement ci ne dina faj maanaam malaat bi ci loolu la yéenee ba wax ne bil Moustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatahul gharra wa indi ahmadu man Cheikh Ahmadou Bamba day li sama yéene mooy ñëwaat beesalaat ci sunnas muhammad salaatu wassalaam waaye du ñëw ngir indi fi lu bees loolu mu gën koo fedd li boo demee ci muqaddamatul amdaax ma ngay wax nadaafatuhu kulli min allaghwi taharat waaye wa sunnatahu inshaa rabbi ubayin am na feneen fu muy waxaate banaan ujaddidu shariata almutahara inshaa walxaqiqata almunawara kon yooyu yépp dafay tegtale ne Sëriñ Tuubaa kon sunna mooy lim doon dund mooy li nga xamante ni ci la euh, teg yoonam yi na ma ko junjowoon ca bayit yi njëkk ya rek bi mu waxee ne allahu rabbi wa hudal islaami wax ne buur moom muy yàlla bu ma koy tànn kenn rek ma ci doy muy suñu borom yi nga xamante ni kenn la te amul ñaareel diine it ci ma ko def muy sama diine mooy lislaam ab yonenti kii sama yonent mooy muhammad alayhi salaatu wassalaam alquran mooy sama téere euh, kaaba gi mooy sama qibla wane ne mu wax ne zahara li anna i'tisaaman bil kitaab wa bi xadiisil Mustafa huwa sawaab man daal xam naa ne liy njub gi dëgg dëgg dëgg mooy ngoy ci téereb yàlla bi ak xadiis yi yonent bi alayhi ca la waxe ne haasi tariqati wa fiha almao kon dangay gis ne yoon murid kon mi ngi dugg rek ci lislaam génnul lenn lislaam kon yoonu murid lépp sunna la amut lenn lu bees loo xamante ni sëriñ bi indi na ko ci euh, ci sëriñ bi dugg na ci wàllu ba tey ci wax ne yoonu li murid sëriñ Tuubaa mi ngi ko sos rek ci ñett yooyu mu sëñ fàllu junj sànq muy ci xam-xam ak ci jaamu yàlla ak ci liggéey ñi ciy joxe rek benn xissa bu gàtt bu am solo dañu wax ne Sëriñ Tuubaa dafa fonkoon jaamu yàlla ak liggéey ba ñu wax ne am na benn taalibe bu mas a ñëw ci moom ne ko man day mbakke dama jaaxle Sëriñ tubaa daan ne ko doy na jaaxle day yar rekk la bu la àdduna jaaxalee demal liggéey jaaxle àdduna gu liggéey mënta faj xamunu ko bu la àllaaxira jaaxalee demal jaamu ji yàlla jaaxle àllaaxira gu jaamu yàlla mënta faj xamunu ko ne ko wasalaam kon yooyu yëpp da ngay ci ne Serigne Touba kon yooyu yëpp la doon boole woon muy jaamu yàlla ak liggéey kon da ngay gis ne rek eh, lenn ni yoon wi génnut sunna kon Serigne Touba noonu la doon dundee kon balay meneen mbokk dugg si rek dañuy joxaat kàddu gi Serigne bi su fekkee ne am na yu mu bëgg mott li mu dugg ci teg ñun ñoo ngi leen di fàttali ne rek numéro bi ku bëgg a dugg si 628 17 77. 841 99 11 ci ñi bëgg dugg si te nekk bitim réew ñoo ngi nuyu di ziyaare bu baax a baax Cheikh Ahmadou Rafaay mi nga xamante ni agsi na ci jataay bi di doom ci Cheikh Mouhamadou Fadel ñu ngi koy nuyu bu baax a baax te di ko ziyaare kon sëriñ Fallou su fekkee ne am na loo ci bëgg yokkaat bismillah. waaw xam naa jataay bi mu wax dëgg borom xam-xam a ngi fi. ñun du ñàkk xëy na ay kàddu yuñ ci sànni ci mottali li ci bàññeeku ak leeral li ci lënt ak tontu yenn laaj yi itam waaye dañuy ube rek ci dénkaane boo xamante ni dafa jóge woon ci Sëriñ tubaa jëm ci mbooleem jullit ñi Sëriñ tubaa dafa wax ne képp koo xamante ni gis na wax ji na xam ne mu ngi jóge ci ku koy laaya biir ba dem njëkk a jiital ne mooy bàyyi leen jëw neena yitam itam na ngeen nekk ñoo xamante ni dangeen ngeen di soxlawoo seeni ayibi bopp wala si ngeen di soxlawoo ayibi seeni moroom nee na itam na ngeen fexe ba jullit yu góor yi mucc seenu làmmiñ ak jullit yu jigéen yi itam mucc seenu làmmiñ ni ñu muccee ci seeni loxo ngeen fexe ba du ngeen leen teg loraanga ci seen loxo na ngeen fexe itam seen i làmmiñ itam bu leen ci teg loraanga ci wàllu jëw te ci ne ngeen di wattandiku itam woote seytaane ndax nee na saytaan du leen woo lu dul jëme leen ci loo xamante ni sawara rek la ak gàcce mu ne itam ni ñuy xamee woote saytaane balaa nga ko ni nga koy xamee mooy nga settantal ak xool bala nga caa tàmbali wala ngay jëf dara su fekkente ne gis nga ne lii ñu la woo day yokk sa gëm yàlla day yokk sa lislaam day yokk sa jikko yu rafet nga xamante ni loolee woote bi yàlla waaye fa ne wala luy wàññi lislaam wala luy wàññi jikko yu rafet na nga xamante ni loolu woote bu seytaane la wala yaasu billah teg ca di wattandiku lekk lu araam ak lekk lekk lu lënt ndaxte nee na kuy lekk lu araam du mën a def aw yiw nee na na ngeen doyloo li yàlla xam ci yéen ci ay ayib te nëbbal leen ko suturaa leen ko walis ngeen di nekk di werante nee na su ngeen gisee nit koo xam dafa ñëw ci yéen ngir bëgg werante benn ñaara fi nekk ñaari yëf fi nekk su fekkee yéen a yore dëgg ga bu leen ko tontu su fekkente ni itam wu leen dëgg ga nag na ngeen tuub jëm ci yàlla subhaanahu wa taala da ngeen def aw yiw teg ca ne itam yéen ñi nga xam ne aju ngeen ci man maa ngi leen di digal ngeen bàyyi lu araam ak lekk loo xamante dañ koo sib nee na ku xàmmee yooyu yëpp xàmmee lu araam ak lu dagan ba noppi itam mu bàyyi lu araam la tënku ca lu dagan la loola mooy lañ digle waaye koo xamante ni itam réere na ko na ànd ak koo xamante ni xam na yooyu tey roy ci moom bu yàggee mu jëf-jëf lu baax nee na ngeen taxoog def lu baat yi ak man mandubaat yi tey def li yàlla dagan la te taqoo di sàkku xam-xam ànd ak di ko jëfe tey yaru tey nee mag ñi nañuy yërëm gone yi waaye ndaw yi itam nañuy mag ñi itam na ngeen nekk ñoo xamante ne taqoo ak ragal yàlla ci bàyyi leen yàlla tere tey tuub fu ngeen mën toog toll tey taqoo jàng alquranul karim guddeeg bëccëg nee na bu leen teqale boobu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye teg ca ndigal lu yaatu nag ne kuunu muhibbina xuyuuran li jami xalqi ilaahina al muqaddimi al badian na ngeen nekk ñoo xam da ngeen di ambal aw yiw ñeen mboolem mbindeef yàlla yi daan ne fa kullu ma qaddamahu l insaanu fa bil jazaayi jihu dayyaanu lépp lu doomu aadama def rek yàlla dina ko fay ëllëg wa saytukum musalliyan musallima ala nabiyina wa man bihi sama kon lii mooy kàddu yi nga xam ne moom ci wax di sant ñëpp di ñaan itam borom xam-xam yi fi teew itam ñu dugal ci seen kàddu lépp lu manqué ci waxtaan wi ñu mottali ko lépp gi lu ci leeral doon itam ñu leeral ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi salaam wa rahmatullah sëriñ bi jërëjëf ñoo ngi sant bu baax a baax ci jotal gi nga doon jotal mm, waxtaan wi waxtaan wi jot na sëkk wax dëgg yàlla mel na ni. nañ ko séentoo woon amee dinañ ko sax nu kawe njort xanaa di ñaan yàlla rekk mu guddal fan wi may lag wér ak euh, ba li nga yéena ci lislaam yéen ko liggéeyal ci njaboot gi yépp yàlla àggale ko te defal ko mboolem kuy jullit kon ñoo ngi sant ñépp di gërëm ñépp